Babacar Gaye ñu ngi lay nuyu. waaw Fatou Thiam maa ngi lay fay bu baax. am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi ñaar fukki fan ak ñett weeru juin atum deux mille vingt ñu fàttaliku 23 juin 2011 booba yaa ngi ànd ak président Abdoulaye Wade ngeen nekk au pouvoir tey juróom-ñeenti at euh, ginnaaw loolu ban jàngat nga def ci xew-xew bu rëy boobu. waaw euh, ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin dëgg la euh, nekk na bis boo xam ne. dañ koy fàttaliku ci Sénégal eh, ñuy fàttalikoo yeneen bis yi am solo yi ko jiitu muy eh, maanaam 1958 la Protet moo xam 62 décembre 62 avec les événements eh, de ce qu'on appelait les événements de Mamadou Dia que ce soit mu nekk aussi Euh, événement euh, mai 68 bi nga xamee ne li xew France law na ba ñëw Sénégal étudiants yi ak jàngalkat yi génn nekk ci mbedd mi ba kenn jàngul ñu tiiri ci ay balu fetal euh, mu ngi mel ni événement 88 bi nga xamee ne président Abdou Diouf dem na Thiès bay wax maanaam ndaw Thiès ci naan leen une jeunesse malsaine xale yu yara bi ko yu kenn yarul kon bu amee loo xam ne dam na président Ablaye Wade 2011 Euh, ci le 23 juin kenn du wax guléet waaye dañ ci jàngat ne euh, euh, bis boobu du fa nekk door tàmbali li nga xam ne ci ñuy def science politique di mun a am gëstu di xool di def ay maanaam toog jàngat jàpp nañu ne li daaneel nguuru président Ablaye Wade bi mu ngi démarré. mu ngi comme commencé ci le le vingt trois juin boobu kon bokk na nag ci événement historique yi ndax euh, ni mu bindoo waaye bu kenn yaakaar ne dañu toog rek askanu Sénégal am lu ko métti jóg protesté déedéet hmm. dafa am ay ñu amoon intérêt pour que mi tàkk ndax booba jaar nañ président Wade fu nekk mbir dëgër ñu ne il faut que ñu yëgalee ko beneen boor loolu moo indi ñu profité ci erreur bi nga xam ne maanaam ñi doon xelal président Abdoulaye Wade def nañ ko mooy ñu jéem a seet nu ñuy wàññi changé constitution bi def ci loo xam ne président bi mën nañ koo fal bu fekkee am na majorité l' essentiel mooy bu amee vingt cinq pour cent suffrage exprimé bu ko ëppalee ña ca des rek ñu fal ko président moom ak ki mu nekkal ci kéem. biñ ci dugalee mbirum tukki moomu nag la xel yi ñaaw ñëpp jàpp ne président lay Wade day doomam lay wutal nu mu koy wuutoo. Mhm. kon su la déggee xalaat bi jógewul ci président Wade. déedéet ci li ma xam. Mhm. ndax euh, euh, euh, projet wu maanaam kuy wuutu président nekkoon naa directeur de cabinet politique bu président Ablaye Wade à partir 2007. balaa loolu bi ma nekkee assemblée nationale bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñu koy gën a xelal wala ñoo xam dina leen di laaj balaa muy def bi ma génnee cabinet bi dellusi ko deux mille neuf ba deux mille dix ma jógee waat fa ci diggante bi lii xew le vingt trois juin fekkuma biir pale hmm. waaye li ma ci jot xam mooy dafa am ñu amoon intérêt à ce que mbir mi doxee noonu ñoom ñoo ko xelal président ñooñu nag ñooñu nag ci sama euh, xam-xam ak ci sama euh, li ma for mooy bokkul ci cadre parti maanaam responsable yu mag yi PDS yi hmm. mais dafa am ñoo xam ne peut-être bëggoon nañu situation bi demee noonu euh, ndax ñoom jote woon nañ ci président doon nañ wax président di leen déglu moo tax président bi mu demee ba xam ne ñi ànd ak moom premier ministre ba ñi ànd ak moom cabinet ba responsable yenn yu mag yi wan ko ne ko lii kat jàpp jëmul kër ci le président waxoon ne comme noonu la nañ retirer projet bi avant ñu dem assemblée nationale mooy bis le vingt trois juin boobu hmm. waaye gaa ñi dafa mel ni dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo taxoon yaakaar ne mën nañ def forcing loolu moo tax yoon la pour ñu bàyyi xel mais am na ay députés libéraux ñoo xam ne ak suñ majorité ñi doon ànd ak président donte duñ ay libéraux ñu àndaloon ci mbir mi ñooñu ñoo taxaw temm assemblée nationale ba gouvernement bi reculer président bis boobu jamono jot na bi nga xamee ne affaire yi commencé naa tàkk tël tël ji bëri grenade yeeg yu mel noonu sànneente xeer yi bëri dafa laajte ne waaw lan moo xew mais assemblée man ñoom dañoo xam dañuy manifester rek ñu ne ko waaw manifester nañu waaye dafa amoon contre manifestation mu ne mais li ñuy manifester nii xanaa projet bi retiré wuñ ko ñu ne ko déedéet mu ne man pourtant depuis démb waxoon naa dañ ko retiré mm. kon loolu mun naa ko seede muy histoire mm. li tax gaa ñu forcé ba ba mbir mi gën a tàkk yaakaar naa sax bi échauffourée di am en réalité devant l' assemblée nationale mm. boobu assemblée ñoom pare nañ ci projet bi waaye dafa amoon ci diggante bi ay waa PDS yoo xam ne bon jéem nañu réagir def contre manifestation ñi doon def manifestation opposition bi jàkkaarloog ñoom xeer yi jolli te loolu moo gën a envenimé le 23 juin. Mhm. mais daal président Abdoulaye Wade jamono boobu. 2000 mhm. avant 2011 li ma nekk ak moom amul benn yoon bu ñu waxtaanee lu jëm ci kan moo koy wuutu ak naka lañ koy organiser. Mhm. ba ñuy tudd ay doomam ñàkkul daf maa nëbbu. mun na nekk. mais man li ma xam rek laa mun a wax. waaye boo ko seetee nag tey par rapport ak situation bi nga xam ne moom moo nekk biir parti démocratique sénégalais nga xool li fi xew ci diggante bi bon ñi doon wax loolu ñàkkul ñu ne li tax dëgg. mais ci ticket présidentiel bi président Wade mësut a fësal yéene wu teg Karim Wade ginnaaw moom ci bopp Sénégal. loolu yëguma ko. Hmm. mais xam naa ne bi nga xamee ne euh, président mais xam nga président mënoon na nommer vice président. parce que constitution moo ko mayoon cër boobu. na sax jamono ba a nommer benn jigéen xam naa ki ci wax ak ki ci def la mu ko def ba président deful loolu euh, waaye est-ce que dafa bëggoon ñu defar beneen ticket boo xam ne dañ koy fal falaale euh, maanaam vice président bi est-ce que vice président bi da doon xalaat doomam la man sama àqulay sàllaa rek moom lay wax heure bii may wax ak yow yow leer na ne sama diggante ak ñoom ñu neexul hmm. waaye damay wax dëgg hmm. man gëwuma ne président bi ñeme na présenté benn candidature boo xam ne ticket la ñu def ci Ablaye Wade Karim Wade man loolu loolu xalaatuma ko man Babacar Gueye président ñi mel ne loolu. Hmm. loolu moom euh, yaakaar naa bu amoon moo gën a nekk occasion bu gën a gaaw pour que ñu gagné ñu donc euh, prétexte la woon rek pour ñi nga xam ne ñoo jëloon xaalis financer ay xale yu góor. financer le mouvement de contestation Y'en a marre ñu def soulèvement populaire dañ bëggoon jaxase carte bi à part de ce maintenant moment bu leen fàttali ne opposition bi dafa xam ne Abdoulaye di dem élection. Mhm. kon nekku dañ nekkoon ci dynamique insurrectionnelle maanaam daaneel nguur occasion la amoon nañu assuré ceeb tuuti ñu ne nañu taal dëkk bi te le 23 la commencé le 27 ñu dóor ñu continuer ko ci ay électricité bi ainsi ba moo xew dem ba novembre deux mille onze décembre deux mille onze ba élection yi ñëw ba am ñu fiy faatu loolu nekk na loo xam ne c'est une histoire et c'est dommage que Sénégal traversé une période bu mel noonu à partir du 23 juin en tout cas daw Sénégal war nañu ko regretter waaye Sénégal war nañu ci def jàngat pour que nguur gi fi nekk xam na li xewoon mënatul amati te ni ñi am nañu benn niveau de conscience pour défendre seen i ba kenn war leen di noot di tëj ay nit yoo xam ne dañoo wax rek nga tëj leen bàyyi ñoo xam ne dañoo wala dañoo def trafic de drogue wala dañuy def trafic de faux billets nga libéré leen wala nga teg journaliste boo xam ne dafa def lu mu bindee c'est vrai mun na am ñagas na métti na waaye ci làmmañ la yem nga jàpp tëj wala bëgg a tëj bu daañu yuuxoo nga bàyyi yooyu dafa war a jeex je pense que 23 juin war na nekk un déclic pour ki fi nekk comme pour kii ñëwaat xam ne Sénégal daal euh, euh, bëgguñu yegg fa Mali yegg. mais Mali bi nga xam ne jaar nañ ci daaneel Moussa Traoré gis ngeen bër ci démb bi ñu amee problème seen réaction ni ñu mobiliser. ak ni ñu amee discipline. kon un peuple kenn warul di ko cokkaas. te 23 juin pour man cokkaas peuple bi la woon. alors euh, tey fi ñu toll nii ndax gis nga loo xam ne euh, am na lu mu soppi ci réew mi wala mu doon fi njariñ te ruusee ci 23 join xew-xew ba. mooy ni wax léegi maanaam euh, li nga xam ne mooy mooy mooy. 23 juin bi ci boppam liñ ci gagné mooy maturité populaire hmm. président bu nekk fii war na xam léegi ne peuple bi bu ñu bëggee dara dinañ ko jël seen ñoom ñoo ko jëlee seen bopp war nañ ci jàngal loolu waaye aussi waroon nañ ci jàngat ne le président bi fi nekkoon doon def ba le 23 juin am président bi fi nekk ak président buy ñëwati waru ko fi jéem parce que du dem loolu je pense que nag yi maanaam lu ñu gagné la loo xam ne dugg na ci suñu histoire démocratie te war nañ ko consolider kenn ku ci nekk ci ñun les acteurs muy l'opposition comme la majorité war nañu liggéey de telle sorte que confrontation yu mel noonu comme le 23 juin mu bañ am Sénégal à travers ay dialogue am ay consensus fort ci li nga xam ne ñun ñoo ko séq lépp loo xam ne ñëpp a ko bokk nañ ko toog waxtaanoo ko pénitoo ko ba nga xam ne buñ ci amee ndogal ñëpp dañ ci mën a ànd yaakaar naa 23 nekk na jur boo xam ne war na mën a favoriser loolu. Mm, da nga jàpp ne la taxoon ñu di leen xeex 23 euh, juin 2011 euh, ba léegi mi ngi am. ah te du démb démb démb démb dégg nga ne euh, maanaam ki nga xam ne mooy ancien commissaire Sadio yëpp woo nañ ko fële nga xam ne mbax na nekkee benn. Mm. ndax dafa am kàddu yu mu ci bindu ko muy expression wax opinion. te lu bërki démb démb Ndiaye dégg nga fi benn journaliste boo xam ne dañ ko jël yóbbu ko presque jamono bii dafa nekk ci contrôle judiciaire ci wax. Euh, avant ñoom ñooñu ay opposants def nañ lu mel noonu def nañ leen lu mel noonu te bu taxawloon ak maanaam euh, yéen médias yi ni ngeen mën a maanaam euh, taxawa seen bopp ci maanaam lëkkaloo solidarité wu mais journaliste yu bëri dugal nañ leen kaso waaye yéen comme dangeen ngeen ba ay béy ngeen balaa ñu leen di rey da ngeen ñu ko peut être loolu moo tax defuñu loolu mais daal mën nañ nekk daal dans une démocratie apaisée boo xam ne nit ñi tam ñu respecté ñu respecté normal euh, maanaam kàddu yi euh, waddu leen ñi nga xam ne di leen jox ndombo fal leen ci démocratie mun mënuñ leen critiquer mais ñu ormal leen ba euh, bañ leen wax aussi loo xam ne mun na indi fitna ndax sutura ak yar baax na ci maanaam wax ay kàddu daal yoo xam ne dafay yëkkati fitna ku ne war na koo éviter mais aussi ay kàddu yoo xam ne dañ koy yëkkati du ko teg ci deru nit koo xam ne dafa am njaboot aussi loolu nit ñi war nañ ko éviter waaye du tere aussi président bi ak ñi mu àndal am ñoom tam yaa dënn bu baax a baax jël maanaam lu ñuy wax këll bu mag teg ko seen ndodd li ba nga xam ne ku leen wax dara duñ ko dégg loolu aussi bokk na ci maanaam ay jàngat ay leçons yoo xam ne eh, leader lii war nañ ko jàngal eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk seen i sujet parce que contestation moom mënut a ñàkk fi ñu Euh, kon nag nit ñi comme wax lañu am euh, taaluñu tañuñu defuñu coup d'état dañ leen bàyyi rek ñuy manifester ko wax. Hmm. alors ñu jeexal ak euh, mbas mi Covid 19 ngeen taxawaloon plateforme bu tudd Corona 221 ngir jàpp ci xeex bi fu ngeen ci tollu tey. waaw Corona 221 bu fekkee ne au niveau national la moom amul activité bu muy def boo xam ne fës na ndax Corona 221. li ko taxoon a jóg du def ay activité li ko taxoon a jóg mooy génne xalaat idée ne mën nañu organiser la riposte ci communication maanaam jottali waxtaan ak ñi ñu war a waxal yee leen wax leen fi ñu war a jaar ba mbas mi du du law lañ ca waxoon nag moom la gouvernement bi def léegi maanaam mooy jaar ci askan wi askan wi mooy ñan mooy ñu nekk ci quartier yi mooy ñu nekk ci dëkk yi xam nga koñ boo dem am na bàjjenu ko am na président ASC am na jàngalekat bu nekkoon vacance am na ay étudiants am na ay jeunes ñu waroon nañu mën a mobiliser ñu dugg seen mbokk yi wax ak seen mbokk yi ba nga xam ne li ñu war a moytu ci jàngoro bi dinañ ko moytu li ñu war a def ba mucc ci dinañ ko def yee ñëpp mais dañ ko yéex a def ba ñu toll yaa ngi dégg mu ngi am ay ay cinq morts par jour yaa ngi dégg ñu am ay plus de cent quarante cas par par par jour loolu dafa yéeme. li ko indi nag mooy dañuy juumoon ci bi parce que ñoom dañu foogoon ne buñ xëyee rek dix heures ñu dem ministre ministre de la santé annoncer le nombre nit ñi dañuy tiit alors que fii Sénégal réew bu particulier la réew informel la nit ñi jàppuñ ci dara ah gëmuñ sax ne coronavirus ñu bari at loolu am na moo tax il fallait vraiment ñu accentuer euh, effort bi ñun loolu moo doon suñu proposition gouvernement bi de 31 mars lañ ko ko jox defu ci dara ba fi ñu toll lañ commencé léegi di appliquer mesures yooyu ak gouverneurs yeeg préfet yi sous préfet yi cent millions mais en tout cas ñun gàcce ngalaama li ñu xalaatoon wax nañ ko amuñu woon nag moyen pour def ko peut-être loolu moo tax liggéeyu corona 221 sooxe mais saa yuñ ci amuñ ci benn déception nag au contraire dañ doon contribuer pour le fonctionnement de notre pays et pour la défense de la santé des populations loolu daal moo tax ñu jërëjëf monsieur le ministre Babacar Gaye amoon nañu mbégte lool ànd ak yow ci matinalu tey bi dina gërëm ci disponibilité bi. maa leen di gërëm di leen jërëjëf.